ah gàmmu Diegane ndax yàgg na lool jamono Cheikh Modou Ali Cheikh Modou Ali moo sos gàmmu Diegane Cheikh Saabu Diegane jaar fi mu def gàmmu Rasulullahi Cheikh Saabu Diegane génn àddina Cheikh Sidi Bouy di ko def Cheikh Sidi Bouy bi génn àddina yàlla dogal si alaji Omar di ko def alaji Omar bi mu génne àddina si Ahmad di ko def si Ahmad bi mu génne àddina si Deex di ko def si si Deeti si si Deet bi mu génne àddina yàlla dogal alaji Ahmed moo aay moo ko def nii waaye diigan yàgg na dama somar al be léegi ñu ngi sant mbokk yëpp gannaaw bi ñu sant yàlla julli sallallahu alayhi wa sallam waaye ñun nag am na am nañu problème ci état bi ñu amuñu ndox ndox wax dëgg yàlla ndox amut mbooloo mu taje daje nii jóge fu ne ñii jóge Bawol Kajoor ñii jóge Jolof ñii jóge Saalum Sénégal Gambie bee Mauritanie ñëpp ñu naan fi alhamdulilah sant yàlla kon ndax ñu ngi ñaan état bi mu bàyyi xel ci diigaan ndax si diigaan diigaan alhamdulilah sant ñu ngi sant bu baax diigaan dëkk bu rëy la dëkk cosaan la si Mamadou Ali moo fi indi lislaam si kattanu yàlla mun ko jaare si sax saa bi siwlu su ma dal lislaam yi noonu ñoom ñëpp ñoo ko bokk ndax yàlla yàlla moo ñu bind kenn bind kenn ku yàlla moo ñu bind kii bind asmaan bind suuf bind aadama bind guddi bind bëccëg moo ñu moo mooy mooy moo tax sallallahu alayhi wasallam mu gën ci mbindiw taaliba yi ñëw nañu mbokk yi ñëw nañu xarit yi ñëw nañu kilifa bu la ñu fi tey kilifa boo fi yaakaar waa Cheikh Ahmad Bamba kenn di suut ci waa état bi nag galo galo ak ñi mu àndal ñëpp ñëw na fi alhamdulilah galo baax alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax yéen rajo bi yàlla yàlla yàlla jàppale man nag bu coo sax ngeen ñëw sama kër ma sax du ma wax sax parce que bari moo wax ci rajo waaye nag góor soo waxee am mu wax ñu ngi sant ñëpp feebar bi nekk ci àddina bi ñu ngi ñaan yàlla muy ko indi yàlla na yàlla dindi kilifa yi nekk Sénégal yëpp yàlla yàlla yàggal leen ndaxte ñoom ñoom ñoo aaye ñoom ñoo aaye bi ñu aaye ah, ñu ngi sant yàlla lool sant yàlla lam seen xalifa Cheikh Ahmadou Bamba ñu koy sant xalifa Cheikh ah, Cheikh Saab Sirif ñu ko koy sant baax kooku moo fi Chérif Aya moo fi nekk si xalifa Cheikh Saad Bou Soumaïla Ba daal jullit jullit ñëpp ay benn lañu jullit amul volontaire jullit jullit jullit mooy mbokkam xale yi nañu muñ xale yi nañu muñ àddina moom yàlla nee na àddina maa ngi la mën ci coono xalaqal insaana fii kabadin ni fu dem ci àddina lu lu am lu mu wër kisam nga xeeb sa sa yaay sa sa papa loo fi gis ko am Sénégal Sénégal loo fi gis boo fa demee fii dañ ko am bitim réew baax na waaye nag bu ñu muñee yàlla yàlla jox na waaye dugg nga bay sa yaay bay sa pappa bay sa jigéen bay sa jarbaat nga dugg géej ngay dee loolu pertement la loolu xaru la état bi na leen jàppale na état bi jàppale xale yi ubbi buntu yi ñuy def commerce ñuy def càmm na état bi jàppale nit ñi wax baax na waaye wax bi ci ëpp solo moom maanaam mooy jëf xale yi sonn nañ nag waaye nax sonn coono bi ñu am yëpp yëpp nañu muñ nangu liggéey nañu béy nañu sàmm bu ñu wallaahi bu ñu béyee sàmm da daaj suturo dem bitim réew nga dee ci bi wala gaynde rey la wala wala wala wala wala bar takk sa ko nga dee sa yaay du xam sax fu la suul loolu pertement la na xale yi Sénégal di loo seen bopp bâtiment yi du dara du tuus oto yi du tuus julli day muy nattu lii dee mu jàll yàlla indi leneen am na la ko jiitu woon mooy ay fi amoon na fi ay guerre déggoo amoon na fi nañu xale yi muñ ku yaakaar Cheikh Ahmadou Bamba na nga muñ ku yaakaar Cheikh Saabu Sir na muñ ku yaakaar Alaji Maay na nga muñ àddina nag àddina kese la loo fi mun a am ci àddina dem fii nga koy bàyyi dem sa yoon waaye nag nañu bàyyi affaire li ñu dugg ci ndox mi man de sant ma kenn ku ma tagg man toogal mbéy maa ngi nii càmm baa ngi nii napp baa ngi nii nañu muñ de te doyloo waaye même bu amee junni million te doyloo woo zéro président Macky Sall xam na fi ñëw na ñetti yoon di ur Sénégal ñëw na fi ñetti yoon ñëw na fi maanaam Macky Sall ñëw na fi ñetti yoon xam na diigaan diigaan diigaan ak Ngaabu benn kilomètre la ñun amuñu yoon ñun amuñu ndox te mbooloo mu toll nii wax dëgg yàlla état ba leen jàppale bu toon taalibe ak xarit sax gàmm du gàmm gàmm du demee noonu man yàlla yàlla moo tax may wax président Macky Sall bi mu ñëwee fii ñun ñun ñëpp jàppoon Sénégal nag il faut ñu am njiit njiit moom nekkul wolof nekkul pël nekkul séeréer nekkul naar i am ku ñu jiit waaye Macky Sall xam na fi Senghor ñëw na fi Abdou Diouf ñëw na fi Ablaye Wade yàlla dogal ñëw mosu fi ñëw waaye yàlla dogal li fi am diigaan mu ngi jaar ci loxo Ablaye Wade yàlla moo tax may wax wallaay yàlla moo tax may yàlla mooy sama seer ak ah, malaaka yi tout courant bi am diigaan yoon bi am diigaan ndox bi am diigaan gannaaw yàlla yàlla mu ko ci Ablaye Wade te mosu fi teg tànkam Macky Sall ñëw tamit ñetti yoon fii la jóge mu dem mbaam bu jógee mbaam mu dem mu dem mu dem Karlul kër Sal kër ñoom Saliou Bara kon nag ñu ngi fàttali président ak ak préfet ak sous préfet ak gouverneur ñoo fi ne gouverneur yi préfet ñoo fi ne wax dëgg yàlla booy laaj na nga laaj sous préfet laajal préfet laajal gouverneur ministère de nga door ak àgga ci Macky Sall waaye Macky Sall xam ne diigaan bi dara nekkul dara dara nekkul ñëw na diigaan ah, ñoom Amin Tall ñoom lañ fi ñoom ñëpp ñu lañ fi alhamdulilah ñoom Samba Ka ñëpp ñu lañ fi kon nag ñu ngi sant ñëpp. màggal si nga neb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di judd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ci am mbégte lool di ko def itam ci ndigalu suñu xalifa Cheikh Mouhamed Mal Aynin xalifa Digaan ak njobootu Cheikh Modou Ali yëpp kon yaakaar naa ne te lislaam bi yëpp teew na fi xeet yëpp teew nañ fi fépp fu waaye jóge ñëw màggal si fii guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp luy sa aajo yàlla na la ko yàlla fajal ñu ngi ñaan yàlla suñu réew mii yàlla defal ñu fi jàmm suñu diine ji yàlla gën ñu koo téyal suñu ay kilifa diine itam yàlla gën leen yàggal comme ni ko suñu xalifa di waxee Cheikh mala ay Ayni ndax fu mu ñaanee rek mu ngi ñaan jàmm mu ngi ñaanal kilifa yi di ñaan ci réew mi di ñaan itam lépp loo xamante ni mooy defar suñu diine mooy defar suñu environnement tey nag digaan di màggal gane si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di mawludu nabi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy guddi gi nga xam ne moom la rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ci gane àddina kon yaakaar naa diigaan mu ngi koy màggal te yaakaar naa ne màggal na ko itam ak képp ku mu ci war a àndal gàmm gi yaakaar naa ne mu ngi laal téeméeri at yu topp nga xam ne dañ fi màggal guddib yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax ci jamono yu maam ma Modou Ali la woon ci la ko dooroon doomam Cheikh Saad bu ñëw toog na juróom-ñett fukki at ak juróom ci xilaafa bi te amu ci benn at boo xamante ne nii def dafay màggal gàmmu kon yaakaar naa ne dëkk bi dëkkub cosaan la dëkkub diine la yàgg na itam ak diine ndax ki ko sos moo Cheikh Modou Ali Cheikh Modou Ali góoru yàlla la woon jaamukatu yàlla la woon dafa ñëw rek comme yonent yàlla Ibrahima ñëw rek juddu ci ab xeet ne yàlla daal am na yonent bi am na diine am na tënku ci diine tënku ci dëgg di dox di ci dox di ci dox ba yàlla booleel ko góoru yàlla gu ñu naan Cheikh na Cheikh Saad bu Cheikh na Cheikh Saad bu nag keroog ba mu dajeek moom lépp lu mu soxla woon ci liggéey ci diine keroog la ko Cheikh na Cheikh Saad bu dajaleel jox ko ko mu nekk armam mu dugge ko ci ay mbokkam def ci loo xamante ni macha allah lu kowe njort ay mbokkam lañ ndax diggante nga bu ak diigaan un kilomètre la ci jamono yu yàgg ci jamono yu Abdou Diouf bu gàmm musaan jot booba xalifa bi toog te Cheikh Mouhamed Mal ay nen moo doon porte parole bi day dem ci gouvernement bi bu ñu abal ko ay quatre fala ñu xalla yoon wi ba mu dugg diigaan àddina di dox ba yàlla jox ko mu toog ci xilaafa bi président Wade daal di ko dalal ci pale bi mu daal di sàkku ci moom ne dafa bëgg un kilomètre bi ñu tali ko président Wade ne pour le moment ñu door liggéey bi nañu njëkk def rang suñu paree def devis pour def tali bi suñu borom mi nga xam ne dara teewu ko moom mu dal di jaar ci élection yi far yàlla jeexal nguur googu bi mi nga xamante ni président mag Sall ñëw na moom itamit yaakaar naa ne Serigne ba ko koy jooytu heure bu ne mu ngi ko koy sàkku a ah, ab gor nag li nga mun rek mooy ne soxla naa nangam waaye munoo heure bu ne ngay soññe ndax gorkat bu ñu war a defal bu toogee ba defal leen ma dafay soof te nit lu mu bokk loo xam ne si yow soo koy wër da ngay dem bi ci këram ne ko dama la ciy boole dama bëgg nga jàpp ji bu paree lépp lu la ci lépp lu ma mun dinaa la ko defal kooku itam ab sas la kon yaakaar naa ne bi ñuy ñëw ñoom di politique di ñëw fii moom président Sall ñëw na fi ñëwaat fi ñëwaat fi yaakaar naa ne jaar nañ ci élection yoo xam ne yu bëri parti moo fi gagné kon yaakaar naa ne diigaan mënu koo topp rek ci ab tali mënu koo topp rek na ko defal moom su xamee li war fii mu def ko wasalaam su xamul lu de lu lu war fii defu ko itam nuñ duñ ko réclamer bés yàlla dina indi ko ko defar te yaakaar naa ne itam mbir bii de mbiru yàlla la kon yàlla a koy defaral boppam du ñu mere kenn ngir defaloo ñu ndax yàlla rek a ñuy defal te yàlla rek lañuy ñuy tallal du ñu itam kenn naan la. jënga nga fi war a def ak loo fi warul def soo fi waree def def fi xam nga xam nga li nga sartontu woon ak dëkk bi soo fi warul def defuloo fi dëkk bi merewu la dëkk bi bés yàlla dina indi ko ko defar ndax yàlla mooy defar dëkk bi te lu war ci dëkk bi tam yàlla koy jox mooy lu tënku ci li mag yi tënku woon mooy gëm yàlla gëm ne yàlla képp ku mu sakk sakkal na la wërsëg sakkal na la lu mu la war a dundee saa yoo yàkkamtee nag poñe yàlla ne yàlla damay def yàlla da lay fadd mooy que ne yàlla da lay jox dara nga xepp ko nga ne yaa ngi yootul sa bopp leneen yàlla da lay seetaan te képp ku yàlla seetaan nga daanu kon ñi nga xamante ni jën yu jël gaal yi di dem di tukki man de su ma mënoon ñu toog ci seen réew lépp loo xamante ni dañ koy wutee bitim réew wallaay suñ ko fi wutee ni ñu ko war a wutee rek ñu am ko ndax am na fi ay commerçant am na fi ay julo am na fi ay sàmmkat am na fi lu ne ku nekk ci li la yàlla jox yaa ngi ciy doyloo te nit balaa ngi ma mot sëkk sëkk sëkk lépp lu mu am mu doy lépp lu mu ñàkk itam mu bay ko ak yàlla mu xam ne yàlla ay joxe